ci danak, ginau ginau ginaaw nimbalu suñu borom eh, ginaaw ñaanu wayjur serigne Fallou day lima la wax legui ni buma fi togon di la netali yima defal yeb eh, ci ay tawfiq ci situation yu ma genné ci genn rek tag ko balay sa dama bank dina tassé kuma jox million c'est mm-hmm. la du mom man gëm na ni mom la mm-hmm. maintenant nak keneen ku gëm lenen yow la mm-hmm. concerné dégg ko ma la fuma fu ma mën bi may ñëw fii léegi kan laa deseel man fallu mbay ma jox loxo man la fàllu non la nekkee ak man moom takk na ay lunettu quatre cent cinquante la sax boko ko ci yokkal <laughs> donc euh, neke na ci ay difficulté yu bëri euh, Serigne sering Serigne Fallou fekk ma ci mhm. Mhm. alors bu ñuy wax ci relation également mhm. dama lay dégg nga naan sa yaay dafa nekk koo xamante ni kenn la ci yow dama lay dégg sax nga ni doo wuy téléphone. Mhm. mais sa appelu yaay moom boo ko gisee. waa ah, képp laa ci teg démb waaw. <laughs> Ah, képp da nga relation boobu nga am. Mhm. sa diggante ak sa yaay. xam mhm. ah, sama yaay dafa dafa dafa dafa dafa njaboot. ñun daanaka ay góor dama jaxate voilà ay ay ay góor la gën a am waaw kay ay góor la gën a am donc euh, après la am ay doom yu jigéen mais ñun bi ñuy nekk xale man du ma taaw du ma caat ci digg bi laa nekk mais man damaa mos a jege sama yaay maa koy li man lay yónni ma ndugal ko. Euh, man lay yónni ma koy lebal ci xaritam yi ay ceeb ak ay diwlin ak ay saabu man lay yenn dugub bi dimanche pour ma dem walal ko ko maanaam man dama dama ko mus a jege dama ko mus a yërëm moo tax toujours damay nettali ci sama médiateur bi nii premier cachet bi ma am mu ngi tolloon ci quarante neuf mais suñu ma ko fayaan ba ma dawee fa may liggéeyee ba ci sama kër yaay su ma ko ko non seulement xaalis bi day barkeel day mel ni ay milliards mais man loolu rek laa gisoon ni moom laa mën a euh, euh, taxawoo sama yaay c'est-à-dire Tay je suis passionné j'adore ce que je fais mhm. mais jom ju ma mës a demee rek c'est pour réussir pour pouvoir euh, féexal sama sama sama xolu yaay mm-hmm. donte nak nekkuñu won euh, ci dafa dafa dafa yoyu noonu du mm-hmm. won ay difficultés sans papa policier la mm-hmm. euh, c'est vrai que amul moyen noonu waye moy pas yoyu nga xamanteni euh témèr sax buñ ko amé dañu koy def dañu koy def ci seeni dom sans papa da lan dugg waañ diñu togal manam le soir dañuy nek ci dañuy nek ak mom demuñu école par exemple dimanche bi elle dit il dit à ma mère non tay ma leen di defaral li donc c'est ñu takk ko papa nekk papa poule bu fin d'année jotee wala bu Noël jotee ñun bokkoon nañu ci rare famille yuy am ay cadeaux. donc dañoo bëri tiitar mm. bu sama papa indee cadeau yi pistolet yeeg ñoom seen dañuy génn ci mbedd bi di wàññi ne sama papa jëndal nañu cadeau mon père chaque 31 décembre contrairement à parents yu bëri il sortait avec nous ñu dem place l'indépendance mm. pour jeexal année bi c'est-à-dire j'ai des parents formidables mhm. tey quand les gens me disent yow da ngaa baax yow da ngaa sociable yow da ngaa tactile mhm. loolu maa ngi ko jëlee ci sama ay waajur mhm. te wax dëgg yàlla mbaax gi ñuy lam-laamee ci man un pour cent la par rapport ak li ma mbaax gi ma gis ci sama ay waajur en tout cas euh, def nañ liggéey bu am solo ci yow euh, ndaxte nag baax nag moom moom baax moom sa yëfa bopp mais lu dul mbaax mbaax ko gën en fait en réalité les gens ne savent pas que mbaax moo gën a quoi sert ngay bon A quoi sert ngay ngay hypocrite à quoi sert ngay soxor man ndamu jàmbur moo gën a mën a seddal sama xol que sama ndam maanaam tey su ma gisee Penda Badji quand quand je reçois les coupures sur sur TikTok su ma taalee télé bi wala internet bi ba gis Sénégal set mu leer ma ni sama collègue moo ko ibbi. créé na ay emploi mais ni muy seddalee sama xol bi barki xaadimul xadim. loolu mënuloo ko sax xam. Mm-hmm. donc mm-hmm. mbaax moo gën a noppale. Mm-hmm. mais ci ci ci proximité boobu nga am ak sa yaay. Euh, naka lay dundee tey jii euh, li nga xamante ni moom moo di sa siiw sa succès. Mm-hmm. Euh, laataa loolu sax Pape. Mm-hmm. siiw metti na. waaw du jàmmi borom de defe naa yàgg nga ko yàgg nga ko dégg. Mm-hmm. siiw du jàmmi borom. lu nekkul jàmmi borom nag. je ne pense pas que nerne. Euh, d'habitude je dis à tout le monde que lima ma ci carrière mo ma c'est vrai que mangi média tour mangi motivé motiver suis mangi sensibiliser suis inspiré inspirer maa m'a, def m'a, sama marque mais néanmoins ce metti metti c'est amna itam ay côté yu te côté yu côté yu mm. mais si ne ni yombul parce que yenn des Euh, foogee la ko doonul yenn saa yi ñu teg la sax foo yeggul yenn saa yi damay wax euh, ci suma ci sama ci sama live yi naan nit ñi ñun ak ñëpp yam dañuy xëy banque dañuy xëy mer dañuy xëy duñu am dara. dañuy xey dañu am luñu sol. nit ñi booy feeñ ko sax gëm leen waxee damaa bànk duñ ko gëm. non mais légui sax commencé na wàññeeku man il fut des temps suma daan liggéey ba wacc euh, dañuy obligé bolé mak ak euh, ñu baal ma ci wax bi bodyguard ku may garder pour éviter. wallahi dima dima dima rawalé ba légui ma ngi fay jaar cest dire du du du bonne mais nit la koy xaar salaire. Mhm. nit la ko xamanteni lima am suñu kër dañoo bëri comme daara Serigne Mor mbay Cissé bala may defal kenn xanaa defal sama nday jeeg sama bay bek sama rak yu bëri yeeg sama mak yu bëri ak sama xarit yi nga xamanteni ñu ngi tok rek mais néanmoins di nga am lo bokk ak nit ñi mais siiw li ci metti mooy dañu lay teg foo xam ni yeggoo fa et je pense qu'il est temps que nit ñi xam pouvoir faire la part des choses. pour nga toilette nga toog mm-hmm. mais est-ce que am nga xaalis mm-hmm. da ngay banque da ngay mer da ngay jooy da ngay jaaxle comme tout le monde mm-hmm. moo tax may wax nit ñi ni bu leen kenn napp bu leen kenn napp ñi ngeen di gis ñuy nappaateek yooyu boo xoolee ba ca biir buñ la nettalee li ñuy dund amaana sax doo bëgg dund seen dund mais siiw moom dafa metti euh, moom sa yaay wala sa famille nuñ koy dundee parce que évident nit ñi souvent dinañ la attaquer wax la ay ba ci commentaire ah, des nga mhm. gis ay nit mhm. Mhm. oublions même que yow nit nga. affecter bah oui affecté bah bah mais derrière leur euh, leur leur leur leur téléphone mhm. ils contrôler heureusement toujours mais je reste convaincu que c'est gam man nit ma maa mën a toog ñu wax ko ci sama nit mu naqari ma maa mën a toog ñu wax ko ci sama xarit mu naqari ma waxatuma la ak ñu koy wax ci koo xam ni soit yaa ko jur soit yéen a bokk ndey ak baay soit sa collègue la soit sa xarit la soit sa fans la segam fans bu la bëgg rek man toujours damay wax ni bëgg ma dafa xaw a jafe ndax boo ma bëggee di nga toog di nga dégg lu ne dinañ wax lii dinañu wax laa soit da ngay dëggal rek ànd ci ak man mais je reste convaincu que euh, yomb pour ñoom je reste peut-être man la ñuy dalal sama xel très souvent sama yaay ak man da nga naan kii nekkate maire légaliser la moo ma naan demal bul faale kenn ah ñii li ñuy wax ñun bàyyi wuñ ci xel mais wóor na ma ñu loolu mën na leen a naqari tey da ngay toog mhm. euh, li may faral di wax ak sama rakk yu jigéen yi mhm. souvent yu baax yi buñ la ko waxalee kenn du la ko yónnee mais yu bon yi sa ay propre mbokk ñoo la koy yónnee mhm. sa ay cousin say cousin say jabari cousin say mbokki say say say say mbokk mhm. ay nit yoo xamante ni sa ndam mhm. duñ ko célébrer de mais li ñuy yónnee say rakk li ñuy yónnee say mbokk rek mooy waa dégg li ñu waxal Pape Cheikh waa moom mbaa lii dëgg la mbaa lii du dëgg mbaa mbaa mbaa lii ça fait vraiment mal. Nyom mhm. yenn dit duñu mais da ngay dégg wala nga gis wala nga gens ak nit pourtant de waxna ak barki qui mais heureusement ba. Mhm. ay sama sama papa ci yaru militaire la ñu yare. Mhm. suñu kër je dis souvent man rek ma fa min mbedd. nit. sama araki yi dañu yaru sama les dañu yaru et puis ay muñkat lañu. mais frères et mes sœurs ñima bokkal ak ñom sonalee wuñ ma non mhm, mhm. sama waa kër duñ ma sax déranger duñ ma sax sonal ci quoi que ce soit donc c'est une famille modeste mais vraiment bu mun muñ bu mun a mhm. mais man leer na ma ñi de temps en temps ni mu mënee dégg Penda Badji ñu wax ko dara mu naqari ma. na ma ñi ni ñi déggé yenn ci man. forcément daf leen di naqari. daf leen di naqari effectivement mais mais ci lolu ci média tour bi ngay def ni Pardon, euh, suivre Nala. Mhm. yu que yi nga def amna yu ma ci mhm. euh, vraiment euh, Pape nga am passage bu nga xam ne nga ci expliquer lo am solo mhm. nga ni un dit la sax boko nit ñi nit ñi duñ ko xam nga un ba tey buñ ci taxawee. Mhm. ci lum la jural. Mhm. demoon na sax ba nga duggoon ci benn phase. dépressive dépressive. Mhm. loolu tey boo ci ñëwaat. non mais euh, tey par exemple peut loolu laa mën a expliquer mais am na yenn yoo xamante ni doo ko mën a expliquer li tax ma koy expliquer mooy d'abord am naa courage su toog en toute liberté di ci wax te ku ma ko waxul woon doo ko xam. parce que yàlla toujours daf may suturaal boo ma waxuloon lu rëy léegi nii mun naa génn feccal la pecc mu trop plein le ko tubaab tuddee yenn saa da ngay gis ci sey ci kay yow mi daf lay dar dal da ngay am trop plein trop plein bobu nak diko dajalé diko dajalé diko dajalé très souvent mën na jur ay jéyee yo da ngay am problème santé mentale mm. mën na jur par exemple li tubaab euh, burn out nga xamni da ngay finalement doto xamante lan ngay liggéey burn out nit xaru na ci burn out nit démissionné na ci burn out nit tok na ci kërëm dans le noir du génn ñu nan ki changé na ki da ay rap ki dof na légui yenn say ñun fi Sénégal amna ci ay fièvre yu bari yo xamné day dal nit turu fièvre ba sax duñ ko xam. Mhm. ñu considérer la comme dof. Mhm. dafa rew mhm. dafa fuuy dafa changer fekk ya ngi am trop plein trop plein nak ça arrive à tout le monde ça arrive aux femmes qui sont dans le dans le ménage ça ça arrive aux personnes qui qui travaillent te man nit dofu liggéey la man dama na liguey 24 sur 24. Mhm. donc yoy boko boo plus ay rumeur ñu naan la yaay Youssou Ndour yaay Viviane yo do doo kat yo da nga am doole. Mhm. yo jambar nga fekk yo au fond de toi yaa ngi jooy. Mhm. man jooy naa wàcc naa ba tàyyi jooy. su ma le matin ñu waxatal ma lu ñaaw ma sama yoro rongoñ dawal sama oto dem liggéey. te bu ma damay fecc damay ambiance kuma néwul won ni amna ay problème santé mentale duñ ko gëm. force boobu foo ko daan ben écoute parce que doomu policier la taalibe sëriñ Fallou la damaa gëm suñu borom te damay kennal suñu borom aussi parallèlement te am na yenn yoo xamante ni mënoo ni jullit nga yonent bi dund piir que li nga dundou nul n'est prophète chez soi yonent bi tax sax ñu wax makka la juddoo waye dafa gaday quelques années plus tard la suñu borom teral ba paré né ki moy gën gi mbindeef c'est que mom mo mën a dékku yu métti yoyu waxatuma lak man waye xam nga la ca yonent bi du ci ñun la ca yonent bi du ci man mais toujours dama don jéem naan na def ni mom na euh, xol na mu daan doxé ak lima mak ñi jàngal muy muñ mais nag yenn saa yi muñ yi dafay indi euh, bopp bu fees muñ yi dafay indi trop plein comme j'ai dit tantôt yooyu nag mën na indi burn out nga xam ni euh, man dugg naa ci phase burn out di mer di xuloo après dem ba am ay crise d'anxiété yu extrême euh, j'étais irritable maanaam hypersensibilité yëpp laa boole lépp loo xamante ni mën na sonal nit dama daan toog ku ma ne ku ma ku ma ne na nga def ma jooy ku ma sa émission bi neex na ma jooy euh, kuma won photo nit kuma nam sax ma joy dem ba nga xamanteni ni ba le soir sama par exemple je me rappelle euh, man je vis seul damay ibi fenêtre yi ngi quatrième wala volet yi di nit kuy je suis mom kessé nek di est-ce que nekkuñ suis filmer est-ce que nekkuñu dima déglu manam may développer ay peur ak paranoïa bu extrême mais comme ma s'op mhm.

toog ne bon du ma seetee gum psychologue mais dama xalaat dem seeti psychologue bi rek commencé amat ay crise maanaam toog jékki-jékki di rocci fii lii di déjjati télé yi mhm. di toj kër gi mhm. naan naan ñi ma nekkal da ngeen may filme mhm. yéen gi am na jour boo xam ne damaa toog rek jël sama téléphone yëpp di ko di ko yàq di application yi ma dindi euh, beneen bi ñuy def Apple boobu nu mu tudd euh, sama iCloud ma dindi ko sama application bancaire parce que maa ngi naan ñi ma nekkal dañuy hacké sama téléphone maanaam daf lay pousser ci pensée yoo xamante ni mën nga cee xaru mën ngaa rey sa jabar mm-hmm. mën ngaa rey ki la jege mën ngaa xeex ak nit mën nga sax gaañ sa bopp

quand j'ai eu la chance d'aller voir d'aller voir un psychologue la première chose qu'on m'a dit moi da accumulé accumuler ay stress mm-hmm. da nga accumuler ay coono danga am trop plein danga ngaa yi nga bolé yépp tax nga bolé ko yow fan nga ma Sénégal la mm-hmm. après ils m'ont aidé ils m'ont soutenu mm-hmm. et pourquoi j'ai ce courage d'en parler de me ni ci fait divers du Sénégal chaque jour ñu ne la nit nit toroxal na. nit jam na. Mhm. nit rey na jabaram man yooyu momay gëna metti nit rey na ay domam lolou momay gëna metti nit ngi di saga ay saga yu ñaaw ñukoy retane wala nan ki moy saga kat bi mhm. fekk on a tous des problèmes psychologiques. Mhm. légui nak problème santé mentale. du dépression kese am amna schizophrénie amna burn out amna yenen yo xamanteni moy gravité autour de ça je ne suis pas un spécialiste mais je demande à tous les sénégalais. cher na cherul man j'en sais rien l'essentiel moy maa sensibiliser té am am na ñaar ba ñett ñoo xamante ni peut-être mën naa leen toucher bu ñu bay bayal loolu mhm. parce que bopp bu baaxul askan du baax famille sonn koñ sonn am na ci ñoo xamante ni tey sonal nañu seen yaay yi huit sonal seen waa kër yi huit sonal seen jabar yi huit sonal seen waa koñ yi huit sonal askan wi huit Sénégal sonn ci ñoom lool boo seetee ba ca biir problème mu santé mentale la ñu am mhm. donc man su ma ko dencoon pour man quand ma génn ci épisode boobu noonu duma damay jàpp ni duma gor parce que homme public là, nit ñi fonku nañ ma sama baat amna fu mëna yegg et quand j'ai commencé à en parler ci sama média tour bi tous les jours je reçois des appels soit de journalistes d'animateurs ou de célébrités yu may wax ni man de li daf may dal pap mais xawma ko may waxal j'ai besoin de parler li ma lay wax moy bul wax ak xarit bul wax ak andando bul wax ak collègue bul sax wax ak say wayjur va voir nit yi nga xamanteni li lañu jang di ci liggéey di ci fajj ay nit ñu jàppale la ça te permettra de à temps sauver sa bop sauver sa waa sauver sa wa kër sauver sa wa dëkk. donc l'objectif mooy objectif courage bi am. pour sensibiliser par rapport à la santé mentale. c'est important mais venu mhm. de dellusiwaatee ci TFM. Mhm. là moi c'est relation ak la famille Ndour wala boog kan nga ci gën proche. ci ñoom mhm. entre Youssou Ndour Bobondo ou même Jagando euh, écoute Youssou la ci gën a ci